ci senegal ak ci bitim réew ak eh, ci mboolem fu nit di wax laa ilaha illallah muhammadun rasulullah ñi ngi nekk eh, tey ji ak yéen ci dëkk bu tedd bii di Touba al Mahrousa ci kër Cheikhul Khadim fii ci Daarul Mannaan tey doon ñaari fan ci weeru eh, mars ñu di fi amal benn jataay jataay boo xam ne benn la ci jataay yi nga xam ne moom la ñu doon amal ci at yi ñu weesu yëpp euh, te mooy jotaayu alquranul karim euh, muy concours boo xam ne société C3S muy euh, compagnie Serigne Seck Sénégal moo ko organisé di ci amal mbindum alxuraan moo xam ne dañuy seet ci candidat yi nekk ci Sénégal te bokk ci concours bi kan moo ci gën a rafet mbind kan moo ci gën a wérle mbind kan moo ci gën a dëppoo ak arrasmul usmaan yi muy ñetti critères yooyu euh, ñu taxawal nag ay commission yu bari commission yoo xam ne bokk na ci bi nga xam ne moom laa jiite muy comité scientifique euh, muy ñi nga xam ne ñooy saytu mbind mi euh, seen mbokk la imaam Xaadim Ndiaye Serigne Daara nekk fi nag ak mbokk yi nga xam ne ku mel ni Serigne Cheikhouna Abdoul Wadoud Serigne Sam Mbacké Serigne Mor Talla Euh, sëriñ Hamdi Moustapha Diop ak sëriñ Moustapha Diop Ndar sëriñ Mbacke Abdourahman ak sëriñ Alxaaji Jaxate oustaz Sall ak sëriñ Mbacke Sourang ak yen mbokk yëpp euh, ñu bokk nag tey nekk fii di def li ñuy wax final final national final bi nag xam ngeen ne def nañ régional yëpp biñ noppee itam euh, demi final biñ mujjee def alxames ni tey lañ ko doon corriger ba quarante personnes yi nga xam ne ñoo jàlloon ci demi final yi jox nañ leen seeni neexal tànn ci nag ñaar fukk yi nga xam ne ñoom ñoo bind alxames euh, tey jii doon le ñu war a nag doon corriger ñaar fukki copie yooyu nga xam ne ñoom ñooy ñi nga xam ne fukki góor ak jigéen ñoo ci fukki góor ak euh, juróom ñoo ci nekk ak juróomi jigéen ñooñu nag euh, seeni résultat ñi ngi koy war a xam Euh, incha allah ci weeru Ramadan buñ demee ba euh, war a organiser nag li nga xam ne mooy euh, cérémonie bi nga xam ne ci la ñuy joxe prix yi xam kan moo jiitu kan moo ci topp moo xam lu góor la moo xam jigéen. kon ci foofu phase boobu la nu toll tey ñu ngi fii nag ci Touba comme niñ ko waxee kër Cheikhul Khadim fii ci Darul Mannaan nga xam ne kon tey suñ jógee fii léegi dañuy garder nu mu tuddati dañuy garder. Euh, résultat yi bu ko defee jury bi nga xam ne nii moo doon toppatoo liggéey boobu day garde bañ egg ci nag mois de ramadan ci biir weeru koor gi incha allah ci la ñuy xam ñan ñoo jiitu ñan ñoo ci topp ku ci nekk itam ñu jox ko neexalam comme ni ngeen ko xamee ñi ngi ci xaar mboolem jullit yi di ci xaar yëpp di soññ itam nag ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci liggéey bi muy jàngalekati alxuraan yi ak bindkat yi nga xam ne fu ne lañ jóge ci réew mi bind eh, xam ngeen ne dem nañ Fuuta Maatam eh, gépp dem nañ fa dem Euh, ba ci Kolda dem ba Ranirou dem ba foofu yëpp bu ñu nee Fuuta rek tudd nañ foofu yëpp euh, def nañ fa benn régional bu am solo boo xam ne final ba euh, xam ngeen ni mu demee woon ñëwoon nañ ci ak yéen léegi nag li ci des mooy final national bi incha allahu taala ci phase boobu daal la ñu toll di ñaan ki nga xam ne moo. initié mbir mi bu alxaaji sëriñ Seck suñ borom subhaanahu wa taala defal ko tawfiq yokk ko te itam liggéey la bo am solo boo xam ne résultat bi ñi ngi koy gën a gis ndax jubluwaay bi rek moo doonoon daara alquran yi ci Sénégal nga xam ne gone yi dañuy mokkal di tari ba noppi te am ñu bëree bari léegi mënatuñoo bind ku ci tari alquran nga waaru ci sa borom waaye boo ko binduloo fatiha du ko mën a bind loolu la jubloo soññeewaat delloowaat nit ñi ci mbind te gis nañ ne wax dëgg yàlla buñ tàmbalee ci suñ édition bu njëkk ba ci fii ñu toll nii tey dañuy gis ne bind mi mi ngi gën a avancé te itam qualité bi nga xam ne ni moo fi nekk daanaka fi mu ne pour Euh, atte leen sax ba xam ku jiitu ay virgule la ñuy rawante lool nag te bu njëkk demewul woon noonu kon ñi ngi sant borom bi subhaanahu wa taala ci tawfiq boobu nga xam ne defal nañu ko ci liggéeyu alquran bi asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, man la Sëriñ euh, Sam Mbacké comité scientifique ci secrétariat en langue arabe ñu ngi fii di kër Cheikhouna Ahmadou Khadim ci bâtiment Daarul Mannaan muy mën nañu suñu jataay bi mujj ci liggéey bi jataay yi nga xamante ne bi concours Yaatal Mbindum Alxuraanul Karim doon na ko def ci taxawaayu euh, compagnie Serigne Seck Sénégal ci njiitu Serigne Serigne Fallou mi nga xam ne moo teew ci jotaay bi ak Serigne Khadim Ndiaye mi doon wax léegi recommandé scientifique Serigne Mbacke Abdourahmane euh, Serigne Moustapha Diop ndar yore euh, jury bi Serigne Cheikhouna yore kii bi texte yi kii lu ci aju ci wàllu note yi ci loxoom la nekk ak ñi nga xam ne ñoo yoroon wàllu lu jëm ci wàllu topp mbindu candidat muy ñi bokk ci membre maanaam jury yi ñoo tawoon fii tey li tax ñu nekk fi nag mooy tëj liggéey bi nga xam ne tàmbali woon nañ ko ci ay weer yu bari xam ngeen ne amoon nañ lu toll ci six cent quatre-vingt nangam candidat bañ demee premier tour ñi nga xam ne ñoom lañ ñoo jàll ci li ñuy wooye masalan quart de finale yi ñeent fukki nit lañ doonoon biñ demee itam ñu rawantewaat mbooloo mi tànn ñi ëpp nga xam ne xam nañ leen ci wàll gi corrigé waat leen xool ñaar fukk yi nga xam ne ñoo ci gën a jàmbaare ñoo ci jiitu ñu jël leen ñooñu demoon maanaam euh, demi final euh, bañ demee ñun fukk yooyu biñ demee demi final ñaar fukki yi ngeen di jàmbaare jàll ñu tànn leen ñu doon fukki góor ak juróom ak juróomu jigéen ñooñu semaine bële passé daje nañ fii ñu saytu leen mbooloo mi taxawu leen surveiller leen kenn ku nekk bind ab ab robox bu mat sëkk ci lu tolloog ñetti waxtu biñ noppee tey jii dajewaat nañ fii mbooloo mi ngeen gis ñi ngi ni toog ñu defoon ñetti commission commission boo xamante ne bii li mu doon xool mooy commission 1 xool mbind mi nu mel ci wàllu mokkal nu mel ci wàllu rasmu ak maska nu mel ci wàllu mbindum euh, ci wàllu ayib mbind ak i sikkam doon doonoon ñaari commission luñ ko corrigé ba pare jox ko ñeneen ñu toppaat ko bañ noppee amaan nañ meneen mbooloo moo xam ne liggéeyewuñ lu dul xool mbind mi rafet na wala rafet loolu rek lañ doon corrigé mu nekk ñetti liggéey yoo xam ne wenn kayit wu ci nekk maanaam mbo ñetti mbooloo yu bokkut xool nañ ko xool googu nag def nañ ko ci liggéey boo xam liggéey bu sell la bañ xëyee 9 ba ci 5h ci loolu lañ nekk euh, sant suñu borom bu baax nag lépp noppi na ci jàmm euh, résultat yi sëriñ Cheikhouna Abdou Wadoud mi ngi nii toog loolu moo ci nekkoon xëy na moom liggéeyam noppi na euh, bu noppee danañu xam ñett ñi nga xamante ne bii ñoo nekk lauréat deux mille deux mille vingt trois ci cinquième édition concours yaatal mbindum alxuraan bi nga xamante ne bii C3S moo ko doon taxaw fii ci Sénégal kon. loolu daal ci tënk mën naa ne mooy li nga xam ne moo ñu fi eh, dajale woon xam naa la ci toppaat rek mu ñu xam ne liggéey bi fu ñu toll dañuy xool lu ko gën a jàkkal lu ko gën a jubal lu ko gën a rafetal xam naa ne ñu ngi doon waxtaan léegi ci ginnaaw eh, bu ñuy évaluer ci kanam ñu ngi xoolaat eh, yoo xamante ne bi bëgg nañ ci waxtaan waxtaanal bu baax a baax waaye loolu lépp itam du lu may rek lu loo xamante ne bi day jëmale liggéey bi kanam liggéey doomu aadama du mat saa yu nekk da ngay def sa la nga man si dégg sabaru mu wóor na def la nga war a def waaye teewul nga xoolaat loo jàpp ne war nga ko jubbanti ko jubbantiwaat ba bañ àgg ci fa nga xamante ni bii jàpp na ni mooy la xam naa ko la ci des ci cadre damay bàyyi sëriñ Fallou mi nga xam ne mooy kilifa liggéey bi euh, moom mu àggale ko salaamaaleykum. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi waa kuréel yaatal mbindum alxuraan euh, ci turu El Hadj Fallou Seck mi jiite yaatal mbindum alxuraan. man may coordinateur national bi di waxe ci turam ak turu jëriñ ji muy alaaji sëriñ Seck mooy amaan mbégte ci gannaaw bi nga xam ne yàlla def na ñu sottal liggéey bi ren ji nekkoon juróomeelu édition bi ñu doon def correction vingt personnes yi nga xam ne ñoom ñoo jàlloon ci demi-finale bi nga xam ne ñoo war a dem final doon fukki góor ak juróom ak cinq jigéen mu mel ni kilifa yi ngeen di jàkkaarloo eh, ci jiitul Serigne Khadim Ndiaye mi nga xam ne mooy président commission scientifique bi ak Serigne Moustapha Diop Ndar mi nga xam ne mooy président jury bi ànd ko kilifa yi di sëñ Mbacke Abdourahmane ak sëñ naa ak kilifa yi nga xam ne ñi ngi ci suñ gannaaw ak ñenn ñoo xam ne sax xëy na jotu ñoo teew tey ñu ak sëriñ Sàmbaake bi nga xam ne moo jiite laj na xisaabaat bi ci liggéey bu rafet bi nga xam ne def nañ ko bam sotti mu mel ni kon tey jii lañ def correction bi e, fas yéene sargal ñi le 2 avril e, mu nekk cérémonie officielle bi boobu nag ñu ci woo ñëpp incha allah ñu fas yéen koo defee fañ ko daan defee di grand théâtre incha allahu fas yéene sargal ñi nga xam ne ñoo gañe ndam lii lii may wax yëpp nag maa ngi koy wax di delloowaat ak cant ak ngërëm goo xam ne euh, jëwriñ ji ci boppam moo koy def jaarale ko ci alaaji Fallou Seck mi jiite kuréel bi muy sant président commission scientifique bi di sant ñi nga xam ne ñoom la àndal ci liggéey bi di leen jëfal ci seen taxawaay bu rafet eh, di ñaan ñu yàgg koo teewe ay at yu bari xanaa di ci wootewaat rek di wane ne kon ñoo ngi waajal cérémonie bi incha allah le deux bu ñu fi yàlla bàyyee mu doon ñaareelu dimanche ci koor gi di leen siyaar bu baax salaamaaleykum wa rahmatullah ربك بمجنون